Adja Ndiouk Mbaye maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay madame Moreau. Adja Ndiouk Mbaye nga jiite fédération nationale des femmes du monde rural. Euh, uh-huh. samedi bi ñuy euh, màggal bés bu ñu jagleel euh, jigéen ñi nekkee ci àll bi yéen naka ngeen ko fas yéene féete samdi bi. waaw ñun ñun wax dëgg yàlla ñu ngi koy féete le le le fukk fan ak benn lañ koy féete ci weer wi. parce que li tax ñu koy fete dañu am ay membres yoo xam ne dañ dem Maputo ci benn organisation mondiale euh, te war bokk ci doon ay ci membre de donc ñu ngi koy organiser ñaar fukki fan ak benn euh, ci ci ci weer wi Sénégal yëpp di fa daje ngal loolu la ñu koy organiser. ah lu tax du ngeen ko organiser suba comme état bi ni mu koy amalee. waaw ñun xamuñu ndax état moo ko organisé de parce que dañu gis ne benn organisation de femmes moo koy organisé. Hmm. te invitation waruñu ko def ndax suñu naan mondial suñ naan famille rurale ñun ñoo tax ndax ñun ñoo nekk ci àll bi ñun ñooy béy ñooy béy dugub ñooy béy gerte ñooy béy ñebe ñooy béy sésame ñooy béy leneen ñi nga xam ne nag horticulture rek bu fekkee da nga jël ñooñu. Mm. Euh, jël ñoom ñoom di ko organiser nga demal leen ñii doo leen demal day doon day wax parce que ñun saa ñu organiser dañuy invité mais kenn du ko fekk benn ministre bu ñoo fekk si chaque année sax même boobu journée bi passé dañuy organiser la fête de la moisson. chaque bu ñu récolte bu jeexee dañuy organiser la fête de la moisson waaye si ñoo organiser un ministre de la république mu fekk si mosu ñu organiser benn autorité mu fekk si te loolu nag dafa mel ne ñun ci réew mi te ñun nag ñooy moom bi ñun ñooy jigéen ñi ci àll ndax ñooy béy ñoo nekk ci tool yi ñoo xam naaj bi ñoo xam taw bi lépp ñun ñoo ko xam kon nag war nañu cee boole ndax ci lañu bokk. yéen da ngeen a bëgg ñu boole leen ci journée bi mais xanaa invité nañ leen bokk bu ngeen dem. invitation lañ ñu war ta def. li ñu a def mooy ñu boole ñu ñun ñëpp ñu organisation toutes les organisations féminines du Sénégal paysan laa wax ñi nga xam ne dañuy béy ñoo waroon a toog tey organiser ko invité état état ñëw waaye bu nekkee état dafa seet kenn koo koy organiser mu fekkali ko ba état di joxe ay invitation ministère ministère di joxe ay invitation ñun loolu duñ ci bokk ndax boolewuñ ñu dañ ñoo invité. te ñun ñoo war a organiser comme ñun ñoo war a organiser na te mosuñ ñoo gis daana Saalum laa mi nga xam ne mooy bassin agricole maintenant lépp la ñuy béy biir Saalum gi du gerte rek du ceeb dañ ko fiy wey dañ fiy béy ñebbe dañ fiy béy dugub dañ fiy béy bene bii muy sésam bi di béy ñam bi di béy lu ne kon ñun ñooy nag bassin agricole du amul soble amul luñ dul béy Saalum kon war nañu seet bu doon benn ak sax ñu ñëw Saalum organiser journée de la femme rurale pour que àll bi xam lan mooy journée de la femme rurale parce que tey boo duggoon ci biir àll bi ngan ne suba la journée femme rurale lan ngeen ci xam dañ lay wax lu journée femme rurale. Mhm. loolu lañ lay wax parce que xamuñu ko tey boo woon waa àll bi laaj nañ ne xamuñu lu journée femme rurale ñu ngi ci jàng kës néew sax xëy na ñoo xam mais xamuñu ñoom lan mooy loolu te nag ci la ñu bokk ndax ñoom la kon dañ waroon tey dugg te village ya gën a reculé woon leen ni leen ci yéen bokk ndax nag ay sénégalais rek. ci lañ bokk di jàppale président Macky Sall ci lañ bokk état di suñ partenaire amuñu benn partenaire buy état kon tey waroon nañ ñoo boole ci lii ñu bokk ba xamee suñ ndoxoon bi te biir jigéen ñëpp mën a daje xam lan mooy journée femme rurale wax seeni doléance wax lan moo leen métti ak lan mooy seeni problème su boobaa président mun koo saafara état mun koo saafara mais su loolu amul problème yi du saafara ba mu parce que duñ xam lu kon euh, yéen waa fédération national des femmes du monde rural euh, bi nga jiite kon 21 octobre ngeen koy màggal naka ngeen koy màggalee ak tamit euh, yéen partenaire ngeen am surtout ay partenaires financier yu leen war a bunge ci bés bi. waaw ñun niñ koy màggalee mooy dañuy def benn forum danañu daje wax ci sécurité alimentaire parce que tey booy seet àll bi sécurité alimentaire dafa dafa am problème sécurité alimentaire nga fa social mu nga fa kon war nañoo daje ñu wax lan lay suñu problème jébbal ko état ba xam ndax saafara dina ci am loolu lañ war def le vingt et un te ñu ngi koy defee xëy na kër gar gi ñoo ngi seet bu suñ parti nan lañ koy organiser te nañ koy organiser kan jàppale ñu ñooy cotiser dañu ci suñ biir pour mën ko organiser au presse bi nga xam ne ñii ñooy les vraies femmes du monde ñu dafa fa tool ya ñu xam ne ñun ba léegi ñu ci tool yi noo xam tool yi ñoo xam naaj bu tàng bi ñoo xam mbay mu metti ndax ba léegi ma lay waxee am na ci loo nga xam ne semoir yi dañ koy luye ñu bari amuñu semoir da ngay def bu sa morom bayee bayee ba une mu luye la wala ba deux heures mu luye la yow nga gont bu kii xëyee kii gont te yow may gont da ngay luye tracteur bi leen juróom-ñaari junni lañ ko luye ndax tracteur nee nañ bariwul ci ñu ko am kon métti na kon yooyu yëpp war nañ ko waxtu état xam ko xam ne nag ñii nga xam ne ñoo samay nit ñii di samay partenaire amuñu jumtuwaay luñ bay te sonn nañ ñu mën ñoo dimbali ndax tant que ñun jóguñ tant que ñun amuñ li président di wax bay dund bi dina jafe te li ñuy wax naan na Sénégal bay mooy redresser situation économique. Mhm. dana jafe te ñun jigéen ñi main d'œuvre agricole bi ñoo ko gérer tey bu ñu amee suuf ndax suuf suñ ñuy loué cher na soixante quinze blanc fukki junni ak juróom hectare ñu loué ñu suuf soosu ñu war bay état subventionné wu heureusement que état daf ñu subventionné bien dafa bayul ndax fédération bu compté trois cent deux mille membres boo ko joxee cinquante tonnes pour Sénégal yëpp ñëw jënd ko da nga am du bari te bu loolu amul yaa ngi jëndee kilo gerte bi ñaari téeméer ak ñeent fukk ren ci marché bi engrais bi ñëw gën a cher ñeent dina ñu toog métti na kon bu ñu subventionné ñun jigéen ñi jox ñu matériel agricole semoir yi am tracteur yi bari ñun ñoo mën a redressé jubbanti Sénégal économiquement au lieu que grande puissance yooyu daanu ñu dem di leen wëriwaat ñoom ñooy ñëw tey di jëggaan ci Sénégal. ndax Sénégal dootul jëgaane ndax la mu béy doy na te am na suuf am na jigéen ñi mën a béy kon nañ dimbali jigéen ñi pour que Sénégal jëm ca kanam. Euh, ci loolu nag. waaw nañ organiser les assises de l' agriculture peñcoom suuf si ak mbéy mi bu ñu peñcootee agriculture bi ak suuf si su boobaa Sénégal jafe-jafe benn dootul ci am ci agriculture su boobaa dootul ndax ne Sénégal pauvreté ngi su boobaa dootul ndax ne dund bi cher na ndax li ñu béy moom la ñuy dundee. Mhm. kon nañu état déglu ñun la ñuy déglu ndax ñun ñoo xam la ñuy wax ndax ñoo nekk ci àll bi ñoo xam la fa xew ñu taxaw tuuti ci seen jafe-jafe suuf si pour jigéen ñi di si jot euh, nekk na lu metti fan ngeen toll ci xeex bi est-ce que commencé nañ di leen jox suuf si walla euh, situation bi changé wul benn yoon. ba léegi ñu ngi xeex parce que ñun ba léegi tey fii may wax ak yow nii am na suñu ñaari membre yoo xam ne ñu nga jëm Maputo ndax membre UST lañ ñu nga jëm Maputo lan lañ wuti Maputo affaire suuf la affaire agriculture ndax ñoo la gën a xam ne am nañ problème suuf. ñoo koy xeex ba léegi sottiwul loo tax may insister ci sama assises yooyu nga xam ne depuis deux mille deux mille un maa ngi xeex les assises ça pour ñu wax assises de l' agriculture et du foncier pour que Sénégal mën a jëm ca kanam tant que loolu organisé wuñ dañuy jóg ci problème mu suuf parce que dañ ne jigéen warta doon waa jigéen su warta doon même yow boo amee doom bu góor ñu ne kookaay doon mais kooku day amee jabar day jël ak njabootam bàyyi la yow li ndey ji nga toog nag dootu am suuf soo ndax suuf soo sa sa doon doon ki nga doon béy di xus xusi sa doom am na jabar dem na ak jabaram jabar de am nay doom mais yow béy bi torox nga dootoo am loo béy boo amul loolu yëpp say juróom fukki junne ak juróom doo béy man li wax ak yow sama toolu ren jëpp fukki junne fukki junne ak juróom laa ko laa ko laa ko laa ko luyee pour mën a béy waa su fan laa jëm damay perte damay perte hmm. kon ñun. nañ ñu dimbali ci agri assise yooyu pour que ji ko invité tout le Sénégal les paysans le commandement territorial les chefs village l' administration territoriale ak ñëpp le gouvernement ñu toog pencoo mbay mi ak suuf si pour que jigéen mën a béy ndax bu jigéen béy rek Sénégal jëm ca kanam. Euh, ñu ñëwati ci problème poste de santé. Mhm. problème santé. tey village yi may wax ñu ci bëri amuñu poste de santé waaw boo ñu amul poste de ci ay case de santé. case de santé suñ ko amee ñu am ay sage femme itinérante yoo xam ne dañuy wër di dem ci poste de case de santé yi mais jigéen dootul dee buy buy am doom te loolu bari na fi léegi te jigéen waratul euh, euh, gaañu buy am doom waratul de génn àddina kon il faut ñu dimbale ñu ci ay case de santé suñu njaboot yu feebar ki xale ci subur wala leneen jot ko muy feeñal am problème da ngay jot jël sa doom boot soo amul oto yoon wa yàqu ndax taw charette ngay jël boo amul charette nga jël jakarta mën nga caa daanu jigéen di yegg ba sàq daqaar da ngay gis jigéen di ëmb ba diis yegg sàq daqaar daanu su daanoo loru la ca biiram loru kon bu ñu dimbalee tey te loolu jigéen di yegg sàq daqaar yëpp pauvreté moo koy yoxe ñu naan ak sa autosuffisance alimentaire mais mënuñu autonome te pauvre balaa ngaa mën a sa balaa ngaa mën na demal sa bopp day fekk nga am ci loo jàpp mais ku jàpp ci dara mënoo autonome kon loolu tam il faut ñu wax ci li ñu war a wax bëri li ñu war a na nañ ñu ci dimbale électrification léeg-léeg nga gis dëkk yoo nga xam ne seen doom yi bu ñuy jàng tàndal la ñuy taal léeg-léeg mu dal ci mat la bi muy pajaas mu tàkk wala mu mat la mu ruy ànd ak moom dee wala nga xale boo xale day dem dëkk dëkk mu am poto lampe mu taxaw ci poto lampe bi di jàng mu metti lool problème de scolarité nga dem tey ci euh, école donc école yu sori tey da ngay seet xale boo xam ne mu ngay doxee a Guinée ba kër ma jabel pour jàng école cinq kilomètres nga koy def suba ak ngoon metti na kon lañ wax ak wax leen li xew ci dëkk bi li xew ci àll bi pour ñu mën ñoo dimbali mais tant que dégluwuñ ni ñun ñi xam àll bi dana gën a dina gaaw a yéex a jëm ca kanam mais c'est l'agriculture dégg naa ko wax contre l'exode muy lutter contre mu ne nañ lutter contre l'exode rural j'ai toujours parlé de cet exode rural là parce que suñu njaboot gii dem ay Dakar dimbi laanu ji wala ñu dem Thiès wala beneen dëkk ñu dee leen violé metti nañu metti nañu te tey buñ ci dëkk bi Euh, semence am muy gerte mu doy lool engrais am matériel agricole am benn xale dootul dem Dakar di mën daanu ji bañ la fay violé kon loolu yëpp war nañu cee dimbali nga njaboot gi mën a toog ci dëkk bi nag loolu rek na mën a doon. Euh, ñuy wax souvent maanaam autonomisation des femmes jigéen ñi mën a demal seen bopp du ñu dépendre si góor ñi euh, projet boobu le est-ce que jigéen ñi nekk ci monde rural bi bokk nañ si impliqué nañ leen waaw wala déet. waa dama lay laaj yow balaa ngaa mën a demal sa bopp da ngay yor dara yow mën ngaa po di wax pauvreté di demal sa bopp mënta ne ndañu jël moulin à mil yi delloo ko ci xale nit ñi am na du kuy amagu moulin te président moo taxaw te dem naa jóg nag bu ko tub jigéen di bay ci gën a ba léegi am na ñoo xam ne yow ñu moulin à mil te moulin à mil rek mënoon na lutter contre la pauvreté mënoon na lutter contre le chômage des jeunes ndax tey boo jëlee benn mu def ko ci dëkk bi ay dëkk yu bëri wër ko mu ne boobu mën na produire six cent mille francs ci ci weer bi téeméeri ju nekk ñaar fa boo jëlee ñaar fukki junni ba fay ko meññee ba meññee ba ca xale dëkk ca dëkk ba lay doon wala yaayam wala baayam nga jël ñaar fukki junni ba teg ko fële muy nga jël beneen ñaar fukki junni ba teg ba machine bi yàqoo muy maintenance nga nga fay ko ca nga defal ko ca ñeneen juróom benn fukki junni des soo ko jëlee def ko crédit rebel bi séddale ko jigéen ñi duñ ci liggéey te buñ ci liggéeyee tey dina leen permettre ku te ku ñu paree dox sa morom amul intérêt amul dara su boobaa dana leen wàññil banque ya ñuy dem di liggéey di di lebi ndax banque boo dem intérêt ba bari buñ nga jëlee tey sa nga jël sa béy jaay mbaa nga jël sa xar jaay loolu da lay gën a foofu loo waaye dimbali wu kon nañ ñu jàppale wax ak lan mooy doxal àll bi suñ ñu la sabaaree ñoo buñ la sabaaroon tey jigéenu àll bi dinañ leen lan moo di dimbali mais mënoo toog fële ne lii mooy doxal àll bi lii de parce que day sooxe boo joxee benn ministre ko demal joxe nii mais bu ñëwee ay nitam ne ko neex la koy jox yow ma nga xam ne amoo ku la dimbale amoo bras lool nag doo dem loolu mooy suñu problème ñun fa ñun monde rural bi. léegi te tey bu ñu dimbale hmm. dem di jéggaane. au lieu que loolu grande puissance yu mag ñi nga xam ne dañuy ndey lañ daan ne te ñoom ñëpp ñu daanu à cause du Covid et de la guerre entre l'Ukraine et la Russie dañuy ñëw tey di jéggaane si ci Sénégal parce que Sénégal am na suuf Sénégal am na ndox mu neex. Sénégal am na jigéen ñu mën a liggéey am na góor ñu mën a liggéey naaj waa ngi fi naaj baa ngi fi mais pourquoi pas mënuñu dimbale nag ñu day ñun dundal suñu bopp dundal yeneen réew yi su boobaa day développé le Sénégal waaye du ko delloo gën kon lañ dëgg ko. tey jii boo doon euh, apprécier politique bi nga xamante ni njiitu réew mi teg na ko euh, jëmale ko ci monde rural bi lan nga ñuy wax baax na wala. njiitu réew mi def na la mën def na la mën njiitu réew mi dimbale na Sénégal def na la mën waaye nag. il faut mu am na ko ci jàppale na am na ko ci jàppale mu bu dee matériel agricole njiitu réew mi ko recevoir nañ ci mille tracteur ak seeni offset man ne te ñu ko recevoir ci laa bokk mais ba dem di jël na vingt milliards yokk kon dama ne njiitu réew maa ngi koy dimbale nañ ko ko dimbale mu yegg si ci base bi nañ ko dimbale mu yegg ci ñu ko moom ministre agriculture bu bees bi nag agriculteur waaw Aliou Ngouye lu ngeen di xaar si moom. Aliou Ngouye lu bëri ñu ngi koy xaar si moom parce que béykat la boo doonee béykat di nga xam lu suuf boo doonee béykat di nga xam luy béy di nga xam it nan nga mën a def ba Sénégal jëm ca kanam kon ñu ngi koy déglu bés bu waxee ñun su boobaa ñu wax ko lan mooy suñuy problème yaakaar naa dégg nañu ndax ba mu ko falee wax nañ ci presse yi waaw kon dina dégg nañu wax xëy na te nag dinañ ko invité ci suñu mbir na bi ba xam dina ñëw wala du ñëw waaye daal war nañ ñoo jàppale. Adja Ndiouk euh, mbaay Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. kontaan naa ci yéen parce que permettre ngeen ma ma wax tey ak àddina. Mhm. permettre ngeen ma ma wax ak état. Mhm. kon yéen tam chaque année di ngeen ma jël daal nañu fekkee déwén ba waxaat ko fi ci barke Seydina Mouhamed. amiin amiin amiin euh, ñu koy euh, remercier may fàttali Adja Ndiouk Mbaye yow yaa jiite kuréel gi di fédération nationale des femmes du monde rural.